asalaamaaleykum la majorité nuyu naa leen ziar naa leen maa ngi leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku si di leen wax mbaa yeewu ngeen ci jàmm ak salaam alhamdulilahi rabbil alamina sant yàlla sunu boroom waaw dama ñëwoon fii rek di leen wax démb président ñëwoon na fi France recevoir na DSE bi leen recevoir liste lañu def liste bi dañ ne bokk ci DSE rek lañu woo dem nañu uyu nañu président waxtaan nañu ak moom président xamal na leen ni day gunge Amadou Ba bu Amadou Ba pare jëlee nguur gi wala bu jëlee nguur gi moom day dem yoonam waaw à d'autres fonctions te di leen wax rek APR France yàqu na rëb na ndax nit ñi dañoo añaan ndax dafa am yenn jigéen yu ci nekk dañu yaakaar ne bu ñu musóoroo seen musóor laal asamaan mais xamuñu bu ñu xamoon dañuy toog tranquille ndax lu jaxase parti bi ñoo ko jaxase seen loxoon si biir ndax dañoo añaan dañoo soxor seen añaante goog ñu nekk nag ak seen soxoraay boobu ñu nekkee moo leen di yóbbee lu nekk nag tey jii lu jaxase parti bi tey luy njiit ñoom ñooy njaak di xamal rekk ñi fa demoon ñi ku nekk ci ñoom seddu nga 1000 euros loolu moo tax duñu nangu yaatal pour wax nit ñi ndax dañu añaan même ki nga xam ne bokkuñ ci list mu ngi toogoon foofu ci biti am na ku ko nekkal ci biir bokkun téye sa mais sedd nañ ko dindil nañ ko 1000 orom jox ko ñeneen ñi bokk ci DSE ñi nga xam ne kenn woowu leen wala xale yi nga xam ne ñu ngi taxawoon ci bunt bi ñetti xale duñu ay ñetti jeeg yu ndaw mënoon nañ leen woo sax ni leen ñëw leen ndax yaakaar kenn du ko tas mais dañuy gën a dem rek di gën a jaxase parti bi te luy jaxase parti bi président day ñëw rek ñu añaan ñu soxor ñu ne duñu ubbi bunt yi ñoom rek ñee ngi calculer lu ñu fay seen luwaay ñee ngi calculer luñ lay lu ñuy fay ay bor loolu yëpp ci président bu ñëwee ci lañ koy wékk te ay góor yu ne léeg nga leen ŋaaral ak ay quelques jigéen yal nañu yàlla defal jàmm parti bi jaxasoo na mënatuñ ko defaraat frustré yi day gën a bare rek day gën a bari mais ku nekk na dellu ci section am liggéey section am taxaw jàpp fi mu jàpp moo gën ku nekk na wut ay carte yu leer biir ak biti nga teg muy Amadou Ba muy Aly Ngouille Ndiaye muy keneen ak keneen ku nekk sa leader bi nga nekkal bul nangu ñu nax sa leader bul nangu ñuy nax sa leader nañu def carte sur table ndax dana am ñu ñëw ni leen am na ay nit bam fees dell fekk nit ñooñu gis leen seen carte d'identité lu nekk gis nañ ko fi gis nañ fi ñi nga xam ne yoruñu carte d'identité Sénégal mais fu ñu dem ñoom ñooy feesal mbooloo bi ñu yaakaar ne ñëpp yor nañu carte d'identité ndekete yuux loolu mooy tromper nit ñi kon nag bu kenn nanguñu tromper leader am ñu yendu ci jàmm ak salaam